avant à part à part Ndongo Lo yan euh, am na mbër instant yoo xam te ne mi ngi sa kanam tey ondu tey su ma la waxee quatre mbër yoo xam te ne pare nga pour affronter ak ñoom. muy kan ak kan. yow yaa yow yaa xaw man damaa xam. waaw man maa ngi fi pour ñëpp. Mm-hmm. mais ku ma làmb booleel. ñu war a bëreeg booy nekk sama ginnaaw nañ bëreeg booy yi nekk sama ginnaaw. doo tudd nag man xamoon naa doo lim. kan laa ragal boo koy lim. Ah, léegi yow nga ay di wutal sa booy ay kii. léegi yow nga lim. man. waaw man ñi nga war a bëre. waaw te tey nee na nongoloo moom kii ak moom. waaw comprendre te ñi ci des dañoo saf. kan moo fi des. sa fi sa góor sa góor. kan sa góor. kan doo tudd sa turu góor. Alioune Sèye Junior bu neex. waaye ba nga ko waree wax ay yàgg yow yaa ngi toog boobu ba léegi di ko moo cat. waaw yow je te jure je te jure. oh woo ma. parce que yéen ñaar ay ndaanaan ngeen te war ngeen bëree yéen ñaar. dëgg la mais loolu loolu làmb la parce que. est bëgg na combat boobu. non Alioune Seye kenn mënu ko bañ ci làmb parce que champion la ay champion la bëreel maa ngi moom waroon nañoo bëre depuis ci parce que dégg naa ko sax moom mu wax ko ci TNT bi mais desul dara lu dul ñun ñaan ñu bëre après moom moo delloowaatoon avance bi maa ngi ko dégg mu naan on ñemewu ma la parce que war nañ koo jox sama avance fii bu yàgg mu delloo moom ci TNT bi la ñu waroon a bëre après moom mu delloo avance bi parce que kii moom moo ko waroon a tëgg waa RDV yi boobu la ñu waroon a bëree ñun ñaar suñu grand combat. yàgg na maag Alioune Seye ba ñu waree bëree yàgg na. mais waaw ba. ay ndaanaan li ma la wax man daal maa ngi fi Alioune Seye kenn mënu ko man mënu ma koo bañ. man de mënu ma koo bañ fi ma toll ci làmb mënu koo bañ wax dëgg neex yàlla. parce que champion la. mbër mu ma estimé la tamit bëri na ay champion. waaw bu ñu boolee dañuy bëri. à moom am na yeneen mbër yu fi. comme Tapha moom am na combat. comme kan. am na waxu booy tapet yooyu. Tapha Mbeur Tapha jël Ada Fass. waaw a dem Ada a ngi noonu Ada Fass de moom ku ëcc teg ñeexu ñebe. Hmm. demal rek. mais euh, Onde comme que euh, instant nga yow nangu woo ñoom Alioune Seye junior loolu bu neex la ak ñan ñoo fi nekkaat. man Alioune Seye junior sax. dëgg la de mais Alioune Seye 2 pourquoi pas ma moom. déggoo. waaw. Ah. mi bëre woon waaw. Ah. sama xarit nga mais jariñu pourquoi pas ma ak moom. laaj. pare nga pour bëre ñàkk. ñàkk dañ ko aj ak waa écurie xanaa ñoom ñaan ñëpp dañ leen a aj sax kay. non ñàkk moom moom Alioune Seye wax mais saison na xanaa déwén moom mais avance su ñàkk jariñu ku la ko jox nga bëre ak moom. waaw avance ñëpp kuñ ma ko jox ku dëkkul Pikine kuñ ma jox sa avance ma jël ko ci ñoom. waaye c'est parce que jàpp duma daan non ba mu set ñoom ñooñu ñëpp. ñoom ñooñu ña. ah pour ah, yow am na koo ragal ba daan bàyyi mu sedd. non ban bàyyi mu sedd. ondu. waaw kon mbër boobu ñu wax léegi léegi da ragal. non c'est daa moom mbër bu may wax te daa maa mës a taxaw wax ci. Mhm. am ay nit ñoo xam ne nii ñu ne ma ondu yow kooku yaa ko raw. kan la ban mbër. du ma tudd turam ah, parce que parce que. non dégg naa ko mais moom on ko nekk mbër moom da nga koo ragal. ma wax ay waxam parce que damaa boo ko tuddulee yow man du ma ko tudd parce que damaa toog ak ay nit. ñuni ma ondu kook bu ko tuddati parce que boo ko tuddee yow da koy yokk coow. da te man man maa ko ëpp coow. Ah, ok waaw xam nga kër bu ki ñàkkul coow. waaw fii nag kër bukki la. kon nekk tey yéen euh, yéen ñu ñuy suivre euh, à travers euh, wasaare lamb wasaare wax dëgg yàlla ondu la fu nekk li ñuy wax fii di ma affronté yëpp mbër boobu noonu dëgg yàlla. da ko kan la mbër bi ba du ko. yow mii yaa ko ragal yow. na yow am kan la. Ah, ah, waa léegi yow woo léegi yow defal ndànk léegi yow xamal lan mooy coow li. waaw da ngeen ko ngurum ngurumee yéen ñaar nga ne ko bàyyil bu sedd waaw c'est parce que loolu lu ñu waxoon la. parce que kon loolu du loolu du tem waay. kon yow yaay. Onde tey su ma nee la Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène Lac de Guiers euh, ñooñu noonu ci kan lay gis boppam koo xam te tey bu baree Onde dina sentir ni kii kat di bëre man Onde dama ci gis bopp. wax dëgg neex yàlla ci làmb moom ah làmb. man pour ñu mbër yi dàq bëri ci Sénégal. Mm-hmm. man dama naan Eumeu la. ok ndax lan. parce que dama kaa fekkee mu mu mu mu bëre entraînement li muy bëree li muy bëre entraitement bërewu ko sax ci làmb Eumeu Sène bëriwul sax ci làmb dama kaa fekkee mu bëre def ay yoo xam ni moom dafa am talent quoi te noonu la mënee fecc tamit amaseen ay fecci sabar yi gelli di fecci nii tànn biir nii Eumeu bu ci duggoon bu feccee nga bàyyi ko billaahi Eumeu day tëgg sabar Eumeu day baske Eumeu day féey moom moom nit waaw nit koo xam ne nii la moom dafa complet moom bu toogoon nii di comédie nii jël am envie comédie nii bu dee comédie da nga naan sax déedéet man dama kaa xam bu baax a baax a baax mais Balla Gaye 2 dafa nekk mbër boo xam ne nii mënoo bëgg làmb wala nga xam làmb doo ko estimer parce que benn am na jom léppam day gaaw man li ma metti rek ci àdduna li may yéex a bëreeg Balla Gaye li ngay yéex a bëreeg moom. ok kon yow euh, sa rêve dafa bokk ci. nga bëreeg Balla Gaye numéro 2. billaahi wallaahi taalaahi. parce que man xam naa ni tey sama combat ak làmb bu ko perte rek. perte na tey combat bi gën a neex ci àdduna. sa sama combat ak Balla làmb warul perte làmb euh, combat bu mel noonu. parce que xam naa ni mag Balla Gaye 2 njar la. moom dof la boo xam ne day ñëw te man la dof laa boo xam ne tamit damay ñëw. li ma koy yéex a fekki man looloo may metti mais bu ma sañoon damay abrégé yoon bi boo gisee may daw nii sax allure bu bëri bii nii sax lool la. mais yow na nga bëreeg Balla billaahi damaa bëgg a bëreeg moom barki alxuraanu karim sama rêve yëpp mooy at bi soufflé na ci diggante Balla gay 2 Onde le fou. waaw ah, Balla dox na Onde dox na. daje lay la ilaha illallah man loolooy sama rêve. oh après ci ay Onde jël ba mu ko daan. Oh. kii du nit doo mais dëgër musóor bi. ay waay gisal li mu defati. ma jooy daan ne sama yaay waroon naa fekkee lii. loolooy sama rêve. Balla Gaye 2 Omar Sakho dégg nga li nga xamante ni moom mooy euh, Onde la fu wax wax dëgg yàlla kenn ku nekk nag am nga droit wax sa bëgg-bëgg parce que tamit ndaanaan la macha allah mu nekk koo xamante ni làmb daf ko estimé wax dëgg yàlla mbër boo euh, taalal micro da nga naan Balla Gaye na Eumeu Sène na Lac de Guiers na Modou Lo te amaana ñoom liñ fi def moom moo tax xale yi bëgg bëreeg ñoom Onde nag nee na dafa rêvé pour bëree yëg bëreeg yow même bu dee entraînement sax Balla woo la fa tey. non moom des fois dañuy daje diin mais xam nga dafa xama nga kii bala nag te mu ne ma <laughs> dëgër mu sóor dëgër mu <laughs> rek daal di yéeg ci diin yi xam nga mais maa ngi koy xoolee bëtu ay bu ñu làmb boolee. comme ni am nga làmb moo tax Balla Gaye mi ngi ci làmb ba léegi te man maa ngi ci yoon bi di ñëw. Mm-hmm. mais daal mooy nga bëreeg sama rêve mooy bëreeg Balla Gaye yàlla moom bu ma defalee loolu desee la tuma dara dara dara dara ci kaw suuf. waaw xeex bu tar daan ko jël bu rëy. doog a xaritoog moom. ok waaw. Euh, beneen mooy dañuy ñëw ci li nga moom mooy seen écrit Onde xam cosaan puusul paasul jamono yi ñu toll soq moo fa nekk Onde la fu jatli Jordan mi leen joindre ak euh, Naar Sokas bu gisee sax ñu ngi ci gën a ràññee instant bi muy soq ak kéem jatli euh, kii Onde la fu ñi ci des ñëpp xam nga gars yi nañ dañuy gunge ndax gis nañ naar sokas dafa perte combat Jordan perte combat Jatli perte combat soq ma waroon a bëre te combat bi amul ndax ñëpp xam nañ ne feebar bee tax amul on le fu bëre ci daal seen euh, écurie lan mooy seen problème. non écurie bi amul problème. amul problème mooy li ma wax suñu làmb bërki démb yéen a gaaw a jugé nit ñi rek. Mhm. mooy tey yéen ñi nga xam ne nii yéen a nekk ci site internet yi. mbër boo leen ko gisatul rek wala boo leen ko gisee mu ànd ak nit rek doo leen xam ci lan la nekk mais da ngeen naan day gunge ñoo ñu ngi ci seen entraînement mooy li ma wax ci suñu làmb bi bërki démb ma ne leen tey écurie xam sa cosaan dañoo nekkoon écurie boo xam ne nii ñëpp a daan ñëw entraînement ñëpp fonkoon entraînement yi mais tey Jordan ñëwul Jordan gëj na ci écurie bi depuis bi mu bëree ak rëg-rëg xaw ma nag ci lan la nekk bu ma ko waxee moom daf naan ma ond man maa ngi entraîné parce que sébi la dëkk. naar sogaas tamit bi mu bëree kii ba léegi ñëwaatul. Oh, double moteur parce que moom dëkkatul Pikine tamit léegi. muy mhm. dëkk xaw ma côté Guédiawaye bi noonu la dëkk. Mhm. soq tamit moom dafay gëj ci écurie bi du ñëw. waaw mais combat mais combat bi fu bi ci moom combat yëpp ci écurie bi la koy préparé. Ah, mais bu amee combat rek. mais bu combat bi jege jegesee li ci ëpp ci lay ñëw ci écurie yi. ok mais commencement combat moom du ñëw mais fin bi waaw xam nga te ñun ñëpp dañoo nekkoon benn dànk. jatli jatli moom chaque instant day ñëw. booy jolof mii day ñëw man bëri ñëw yëpp. Ah. dama koy wax man dama leen di woo pour ñu ñëw parce que ku ci nekk li may wax nii ci kaw ci suuf laa ko njëkk wax. président bi laa njëkk a dem këram. ni ko président mu ne ma waaw ma ne ko écurie bi gars yi ñëwatuñ entraînement yow mii ñëwoo da war di ñëw parce que yow dañ laa soxla nekkul combat day jot rek nga joxe sa xaalis ñëw taxawu nit ki kii bi dañ lay soxla suñu wet kon ñun dañoo bëgg lu ñuy xewle ñu lay gis bu ñu demee ba dara def naka su dul noonu ñu xoolee la bëtu ragal la wala ruus la parce que moom bi écrit bi nekkee zéro moom moo fa nekkoon démb ñëw na sama kër li ma wax ci soleil bi lu nekk wax na ma ko ci saaga na ma xët na ma wax na ma ma ne ko yaa ko def ma wax ko nu ma kolosaar nga wax lu ne ma ne ko lu la neex waxal mais heure boo commencé ñëwaat tamit bu ñu ma laajee ma ne président ngi ñëw mbër yi ma wax tamit heure bu ñuy ñëwaat ma ñu ngi ñëw. mais daal ku ñëwul ma ni ñëwoo. ku ñëw tamit ma ni yaa ngi ñëw. ku nu ko waay jàppee yaa xam. noo ko gisee yaa xam dëgg la yàlla bëgg man waxuma la nga laaj ma ko waxuma journaliste yi ñu laaj ma ko ñoom ñoo ma ko laaj ma wax leen ko waaw. Euh, Ondo euh, de discipline am na ci écrit bi. discipline mooy lan. mooy comme par exemple. 17 heures et demi la ñëpp di commencé ku ñëwul ñu dàq la loolu am nañu ko xam sax. waaw waaw waaw am nañ heure bu ñuy joxe daal ni 6 heures ku fi fekk ak fi fekkul commencé nañoo entraîner 6 heures ku mu fi fekkul ak ku mu fi yëpp commencé nañoo entraîner mais écurie xam sa cosaan amul dàqe. loolu laa leen wax ni leen écurie day am dàqe Onde bu defee naka su dul noonu nañ ko dàq écurie Fass moo gën a nekk écurie écurie bu mag gis nga gémmiñ bu waxul dëgg day wax fenn. te fen baaxul gis nga écurie yu fi nekkoon am na écurie yu fi nekkoon daan bomb jékki-jékki di ko doo ci benn écurie rayante moom moo ko waral boo waxee ñu ne di warul wax lii diw di warul wax le mais table bi nañ ko dóor ci table bi ñun ñëpp ñu xuloo ñun ñëpp ñu jote après ñu trouvé waa terrain d'entente songaat li ñu songoon dóoraat mu daanu ñuy jëlaat pay chaque at xam sa cosaan amul dàqe lu neex waay def écurie day am ay règlement yoo xam ne nii ku ñëwul ñu dàq la ku def lu dul yoon président bi wax naa ko démb nee naa ko man ma defee lu dul yoon teg ma ci yoon bul ci xool kenn man tamit ku ma gis ñu def lu dul yoon bu ma ko journaliste yi laajee léegi dama koy wax parce que wax naa ci suuf ba sonn. wax ci kaw ci wax ci kaw moom moo ci des. ñoom nag nu ñu ko gisee wala nu ko waay gisee yaa xam mais li am laa wax point. mais est-ce que du yàq sa dëgg bu dee yàq sa diggante ak nit moo xam. man raayuma kenn de raawuma ci kenn problème nag. kenn aw ma ci moom problème dëgg dafa jot ma wax dëgg point mhm. après léegi lu ko waay gisee yow yaa xam ku ma ci jàpp baax na ku ma ci mere baax na ku ma ci jàpp maa ngi dund yaa ngi dund ku ma ci bàyyi tamit yaa ngi dund i maa ngi dund point sama yoon nekkul ci ku ma jàpp ku ma jàppul en tout cas daal man kenn ma doon mere ci àdduna mu metti ma muy sama yaay te dem na ñeneen ñi ci des ñëpp dëgg lay ànd ñoom képp ku ma ci mere ci lu dul dëgg yow yaa xam lu ci gis lu luy dëgg ci man waxoo ko tamit boo ma ko jëwee tamit bu ñu deewee keroog yomal xiyaam du ma la ko baal ndax man lépp lu may wax sa ginnaaw boo taxee sa kanam la ma la koy wax. waaw kan moo tëdd fil euh, xam sa cosaan. man la. yow yaa tëdd fil xam. Ah, comme ñoom Sokku ay ñoom Jadleek ay ñoom euh, kii nu mu tudd ñoom Jordan ñoom ñëpp sa ginnaaw lañ topp. waaw ok. Euh, dañ la ko nommé wala yow yaa xam ni daal yow yaay kii bi tëdd fil bi. non xam xam sa cosaan bi muy door. man maa fa jóge nekk fa mbër man maa jóge écrit fàllaay ñëw ñu samp xam sa cosaan boobu ñoom ñëpp bëreeguñu boobu Jordan moom mi ngi nekkoon écritam ñu koy wax loo show naaru sogaas mi ngi nekkoon fële Pikine mbooloo après man bi ma ñëwee ma ne pourquoi pas ma gis ay jetleeg ay soq ak ñi ñëpp nekk ay boo yoo xam ne am nañ talent ma ne naa ñëw dooleel leen ñu ubbi benn écrit boo xam ne nii ñun ñëpp. dañ ciy nekk liggéey parce que ginnaaw raay lañ dëkk li ñuy jégee raay bi di dem ba feneen mën nañoo toog ci suñu biir gox ñu liggéeyal ko ma dem seeti joron waxtaan ak moom joron boole maag booy jolof mi après ci la ñëw bi mu jugee bul fële ci ëma seen après bi mu jugee tay sunga ci la ñëw ci ñun naaru sogaas maa tax mu jugee Pikine mbooloo ñu waxtaan mu ñëw ni ma dinañ ànd liggéey ñu ànd liggéey xam nga après ci la booy yi tamit kon yow def li ñu war a def ñun ñëpp sa la war a toog non du question ko sa ginnaaw parce que man damaa dem ba ci kër président bi ni ko président mu ni ma waa ma ne ko ma sañoon doo ma test tête de file parce que ay problème mu tête de day indi ay problème ci écrit day indi ay détails te man bugguma ay détails man bugguma ànd ak nit man may am kooku du am bugguma ànd ak may sol yére bu rafet moom du sol billaahi wallaahi taalaahi dañ ma doon wax ay jën kayre yow si ta nga dégg jën kayre dañ ma ko doon proposé ay pambaay ay yu bëri man waruñoo bëreeg man nañ bëreeg jatli nañ bëreek soq nañ bëreeg zoro ay mbër yi nga dégg nii yëpp dox nañ sama combat ak ñoom ay booy bawal ak ñu ne man nañ bëreeg ñoom tey dañoo dem ba ñooñu bi ñu demee xam nga doon wax sama booy yi sama booy yi nañ ba léegi sa booy yi ñoom ñoo raw ci bi ma toog bëreew ma dañ naan ma da nga wax sama booy sama booy léegi sa booy ñoom ñoo la raw sa booy léegi nangam ak nangam man leen sant yàlla parce que man loolu laa leen doon ñaanal dama leen doon ñaanal ñoom ñu nekk ay champion te yàlla na yokk mais bu fekkee ni dëgg moom mooy tax ñu bama ne ma ñëpp baax adduna bi yëpp buñ ma bawee damay tund yàlla moo moo ko wax riddal laay fii fii riddal waali déy ni bu yàlla bu yaay kontaanee bàyyi kontaan man yàlla kontaan naa ko mer yaa xam je m'en fiche mer dëgër musoor dem na maa lay suma life nice ah man barrière naa ko ba carrière solo lay dund man nice arbitre CNG waaw mooy lima ma waxoon rek arbitre yi tey ñoom génn nañ am nañ lu ñeen metti génn nañ toog wax ko mais ñoom dañoo xeeblu seen bopp bu fekkee ni lii ñu def nii yaakaar nañ ne ndam la dañoo xeeblu seen bopp. arbitre yi kon nekkuñu ci yoon. non waxuma nekkuñu ci yoon. mais mënoon nañ koo trouver neneen mënoon nañoo trouver beneen solution bu dul génn ci média bi di wax parce que kenn mësul xam ñaat lañ leen di fay. mais boo taxawee ni 10 000 lañ lay jox ak si toor ak niveau bi mu am Malick sama copain la sama doomu ndey la xam nga baax bay bëgg a dee mais moom bu toogee ni. bu ñu taxawee ni ay 10 000 lañ may fay ak ay nangam ak nangam loolu dañuy xeeblu seen bopp. président Alioune Sarr tamit moom mënul jiite nit ñi ba pare kenn du ko xamal dara waa CNG kenn xamul leen dara Alioune Sarr kan mooy CNG CNG damaa xam ne arbitre ñoom xamaluñ CNG dara pas yooyu ngay gis ñuy takk seen kii ci digg kii ci kii bi xamuñu CNG dara waaj waaj ñu jox leen seen monnaie la ñoom mais kan mooy CNG mbër yi nga xam ne dañ leen di convoqué CNG ñi nga xam ne dañ faa am problème kii keroog la may wax ni ma boo demee. doo gis sax Alioune Sarr ay yeneen kanam ngay gis waaw yeneen kanam ngay gis Matar Ba moom bu taxawee ni waaw affaire bi man sama yoon nekku ci arbitre dinañ ko lijjantee waa CNG moom dafa daw responsabilité moom teguñu ko fi pour loolu dañ ko fay teg moom moo nekk moom moo war a lijjanti problème bi ni jub ci problème bi mu gaaw wax ci Sitor buñ ko ajee tey jii yàq nañ li ñu waroon a defar yëpp parce que Sitor daa am lu nekk ci boppam daa am lu ñu ko jàngal mu xam ko xam ni système bi di doxee lépp moom tey dafa war a am ñeneen arbitre yu ñëw yoo xam ne moom moo leen di jàngal nekk seen maître mais kooku boo ko dàqee dangay ngay formé waat yeneen maître kañ ngay formé waat yeneen maître yu am niveau bi mu am. mu dem wala mu wala mu mu dem ak mu toog ça ne m'intéresse parce que xamal lan moo tax. nitu làmb dañoo tàmm ku jiituñu ñu faqasal la man Alioune Sarr toog feek mu jóge fi sama yoon nekku ci. mais amoo koo gis koo xamante ni tey gars yi ñu ngi naan Tyson Kéba Kanté dégg nañ ko moom mu ne dafa tey bu euh, kii wax dëgg neex yàlla man foofu noonu place bi Alioune Sarr nekk man sama bopp laa fa gën a wóolu ko ñëpp. man bu ma fa toogoon man damaa xamal Tyson dara. wala damaa xamal Kéba Kanté dara xanaa man seytaane laay doon bu boobaa. xamal lu ma leen dara kat di waaw maa ngi bëggoon a wax tamit ci benn affaire boo xam ne dafa am mooy juumu sumbulu bi Sénégal nañ bàyyi di occasionné wu ci yenn erreur yi nit di def sumbulu yàgg naa xar tubéyam ndax Sénégal di jooy di jouer théâtre di jooy di def ay affaire di xalangu ci suuf di fàtteloo nit ñi seen stress tey ji loolu mu doon wax jubluwu ci woon dara lu dul mu jub pour tey jii loo xam ne nii tey feebar bi du dal ñi wala du dal ñële xanaa moom lañ yàpp ñaata théâtre kat ñoo fiy joué rôle di kaw kaw kaw la kawlu ñaata nit la. l'émission tire fin nañ bàyyi yi ñuy def laa la wax sumbulu nañ ko bàyyi dafa juum nit day juum juum na jégalu na nañ koy jégal li mu def defu ko ndax naf su bakkanam defu ko ndax xeeb bañ na ko ba fi mu toog noonu foofu moom du journaliste ci suuf lañ ko teg pour muy cabaxal ay moo di def ay caayam Euh, looy tàggatoo. gër sant ñëpp gërëm ñëpp yal na yàlla defal ñëpp jàmm wasaare yal na dem ba wasaare wu ci làmb bi ci àdduna bi comme ni corona mel ci àdduna bi dem ba tas fépp yal na wasaare dem ba tas fépp waaw yàlla defal leen jàmm seen ànd bi yàlla bu mu yàqu yàlla waaw musal leen ci seytaan lépp bëggee naa ñëpp kontaan naa sama gaay ak ñëpp ah. waaw bëggee naa la ah. <laughs> l' émission à sa fin ah di ko béggewaat bu baax moom Onde le Fou wax dëgg yàlla tey émission bi li ma reetaan ak tey wax dëgg yàlla dama def émission mais dama dem ba benn instant mënatuma ndax onde la foofu mais nag ñu ngi koy remercier ci disponibilité moom ak gaayam yëpp ah mu nekk koo xamante ni champion la kon ni mu ko waxee Basirou Diouf l'infatigable maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la sama caméraman foo ne la acca rek nga ne ma acca yàlla sa jàmm yàgg ci barke Seydina Mohamed kon ni mu wax rek sumbulu mu nekk suñu ah suñu lépp nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla euh, yàgg nañoo béggal kon ni ko onde waxee nit ku dul juum nag amul di wax rek gars yi comme que neen dafa juum dafa juum daal di ko wax rek tamit xam nga ni doomu aadama bu demee ba ne dafa juum rek dafa juum ne ko gars yi jéggal ah xam nga na ko gars yi jéggal ndax sumbulu wax dëgg yàlla béggal nañu nag ci lépp waaw di wax ak gars yi rek lu may wax rek lu dul jàmm jàmm ko gën les internautes kontaane nañ leen bu baax a baax bégewaat leen bu baax a baax nan leen amuñu seen fay yàlla mi am seen fay yàlla na leen fay di wax rek Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar gars yi àdduna daal dafa nekk loo xamante dafa jeex ba pare kon ni ma koy waxee rek lu dul jàmm jàmm ko gën du bégewaat ñëpp di sant ñëpp Fatima kese wasaare kese di jox digg daje gars yi incha allah ci beneen bër wala beneen amateur wala benn arbitre wala koo xamante ni képp koo xamante rek ci làmb la bokk daal fas yéene nañ waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom mooy lii ndax dañuy waxtaan rek commencé guñu mais après nag dañuy comprendre feebar bi yàlla na fi yàlla yàlla nañu yàlla may mu jóge fi ak jàmm ak salaam kenn ku nekk àggali euh, activité wax dëgg yàlla jamono ji métti na loolu mais yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér rek ah yàlla kiwal ñi lépp daal kontaan nañ ci yéen bu baax a baax mais Basirou Diouf kenn du yow émission moom yow ko may jaajëf.